loo fi defoon. ah waxoon naa loolu. waaw waaw waaw ci taw boobu nga na nga ko dëgg nag. parce que doo wax dara. te ñoom xam nañu sama tur. xam nañu xam nañu waaw ñu ngi koy dindi. waaw. ñu ngi dindi sa tur dindi loolu lépp jox ko keneen. waaw loolu neex na. du yoon du yoon loolu day neexoon. dañuy dañuy yoon yoon yoon lañ koy jox rek. muy su ko joxee it góor nañ ñu xam na. te suul jëf baaxut. suul jëf baaxut nag. suul jëf baaxut. waaye moom de defe naa jëngu. kan si ah sëñ bi la defe naa wax ak ci la jëngu. déedéet. فاهم؟ ولم يقدر على بلادي ولم يستر على نهمائه فليهوي تحت سمائه واعبد رب سواه يقول لنا كوكا من سماواته من سماء بلاء بلاء ما تجد مرقته لديه الأقسمر مرقته سنسدول سنسول وسلمل وسجل لأن جنة الرحمن لجام بأن برب المن قال الله تعالى يا ابن آدم تعيب وأغيب ولا يكون إلى ما أغيبه ಎಲ್ಲ ದೂರವಾಣಿಯಿಂದ ಮಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಕ ನೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ನೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದು ನೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮುಂಚೆ ಹೊಲಸಿಂದ ಹೊಲಸ ಬಾಯಿ ಹೊಲಸ ಹೊಲಸ ದೋಸ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಹೋಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರುವ بدأ بيت بن andi. nekk ko dinañu jaaxle ji ba ku amoon sa alal di ko bëgg a lem. dina ah, ah. naan rek dëkk yi koy. Euh, dëkk yi ma yi ma lim hmm. rek. dina dina am. ndax ndax picc yi ñoo ñoo koy def ak ñoom. mbiram yalla dañuy gën a mbiram yàlla mi nek ci borom mbooloo yi waaye wàññi ko ci borom mbooloo yi yàlla dana yaxlaxu maa yasaa yaxtaaru dana yaxlaxu maa bind maa yasaa lu ma soob wa yaxtaaru te may tànn soo bindee bindee fa mën na fi jël bindee jël tànnaat ci biir bindee bindee fa waaw mel leetal ma defoon ndax ndax borom mbooloo yi mën nañu ko déedéet waaw gisuñu ko sax lii la wax daaw بدنا قبل كبير ربنا مبارك لمن جهدت من يهدي لله وبركاته جوا سلمان سلمان لين لين لين بس من يعني لم تقول في في تسكت di rafet aaraam yi di juróom-benn minute. ci ci yi ngay jëf. bi nii. xaw ma xagal moom wax di tapas mooy na sama gerte gi. waaye ci gerte gi. dama la jotee. dama waaw waaw rafetoon na rafetoon na lool de ba ma nekkee jigéen. beneen beneen beneen wàllu jigéen ñi. nga ne ñu man ak xale sama xarit ma ne ma xale nan toog. ñu toog ci ñoom bi. mbooloo nekk ak yow fii. nga def topp ci ji. nga nekk jigéen bu sol lu weex. waaw te mu rafet. waaw te mu toog a ko. ay ay jigéen.

Kan kan kau pernah kelon? Kan kau pernah kelon? Kau di Egypt. Kamu apa itu? Kamu pernah apa? Kamu kamu jam. Kamu jam di Malaysia. I don't DT DT DT ABG. Lah, lah. Kamu jam di kami mana? Saya ni jadi saya berakhir yoon wi nag moom am naa do am naay doom ñu bëgg ko ñu bëgg a dee ci ñoom léegi di wax na dimaa mu nekkoon na ca màkk ba mu nekkee ca màkk ba mu fa jógee mu ngi daanu ci saw jën waaw

ndax arab yi baaxuñu. Hmm. arab yi. Hmm. am na lu ñu bon. Ah, guerre yu bëri ñoo koy indi. jamono bi ah, ah, ñu toll. Koweït hmm. ci boppam la ñu attaqué. dëkk bu ñuy wax Koweït. waaw ñu ngi léegi. waa ji ji ji mooy Makka. ñoom Makka ñoo bokk ak frontière. beneen réewu arabu dal seen kaw ëpp leen doole. loolu ko daw. Irak. Irak Irak mooy ñu doon xeex ak. wala Bagdad lañ. wala Karbala Karbala dëgg la waaw waaw Ousseynou waaw Karbala. xam nga ñoom ñoo doon xeex ca yàgg na. tant yi. Kofa. bor yooyu la. ci biir dëkk boobu la. ñoom ñooy guerre ba léegi. mooy Iran Irak. waaye. góorgóorlu ci weeru yàlla góorgóorlu ci topp yàlla. ak na génn de te am na am na lu ñëw ci kanam. loo xam ne jant bi jant bi am am am dafa dafa ne def nii am na foo xam ne bii bu bu fa tolloo tàngoor jant bi rek ubbiku xal xal xal adduna bi bu bu bu dikkee ba xal adduna bi dina baxal géej gi dina rey garab yi reunir ni lepp ha. lu fi ñëw bo bo ci mom ci yoon bo wala la adina ci tukki kon loolu mooy tukki la bi ha. ni gor mo ni ki dagal yalla gor mo ni ko gën do ko do ci jamm ko te ken bu mu ñaan dana ci ko ñu bu dund ci ko dina dina ko gëkke ci sunu sang ci sunu sang ci sunu julé ci sunu sang ci sunu ñaan da ko ko hmm.

bu bu bu jaxate ak alal kenn jur na bokk bàyyi na bokk ndey bu mu tax loxo alal jaxase ko moom ndax ma ko jaxase moom bu demee ba ca kanam kese di coow dina ca am